waaw man maa bokk si benn association handicapé laa bokk léegi dañoo indi woon fii pour ñuy def formation bi formation bi li mboq lañ fi kii dugub kii ñebe la ñebe lañ fi defar ñebe bi ñu fi defar tamit dañ ci boole ak mboq ak dugub yooyu lañ fi boole def mboq beeg dugub bi dañuy defar ci caagri dañ ciy defar araw dañ si defar cere loolu lañ ciy def ñebe bi tamit dañuy defar pour sunguf bi ñu defar akara ñu defar ci tamit euh, cere dañ ko ci defar loolu la defar fii. formation bi euh, waa ñun association bi dañoo woo jël fi ay personnes jël fi ay personnes ñu indi ñu parti kanam waaw IDRS waaw ñooñu fi indi. Euh, balaa boobu est-ce mu euh? aayuñu si woon daal dañ doon taqale rek waaye fii liñ fi gis wax dëgg yàlla jàmbaar rek ndaxte lu bari dañ ko fee jàng parce que ñun dañ daan def soo amee ci dugub bi danga koy da koy sebet nga dem wal ko. dem ñëw def ko cere léegi nag fii jàngal nañu ni ñu koy defee nu gën a gaaw parce que bu ñu amee hangar wala ñu war a am affaire bu bari commande bu bari léegi jàngal na ñu koy defee pour bu mu gën a gaaw te duñu sonn benn yoon. fii jigéen ñi mat nañu vingt vingt wala vingt cinq personnes formation bi euh, kii lay dooroon jeudi waaw jeudi la pare ku commencé ñaari fan la ñetti fan la ñetti fan la démb. ak tey ak suba incha allah formation bi après dañuy dem ñu def jox ñu ay diplôme bu ñu joxee diplôme nag léegi ñu ñooy xool fu ñu ko mën a defee rek liggéey liggéey bi parce que fi ñu toll nii macha allah mën nañ si lu bari. déedéet mën nañu def kuréel ñu bokk parce que eh, doole mooy mooy mooy mbooloo mooy doole waaw da ngay def mbooloo nga def doole daal. loolu la léegi eh, nga am pour eh, ñi am xaalis ñi am borom daraja yi kon ñu defal leen benn euh, loolu moom bëgg nañ ko trop parce que fi ñu toll nii moom lu ñu jafe woon rek tey ji mën nañ ko muy liggéey bi fi ñu toll nii matériel bu ñu am rek dañu koy liggéey ba mu normal. waaw matériel daal ñoo ngi woo ñoo ngi woo képp koo xam ne war nga ñëw mun a dimbale rek nga ñëw dimbale ñu parce que tamit soxla ñu dimbal trop parce que handicapé da daan def bu xëyee dem tëdd nelaw wala mu dem yalwaay ñu kon bu jàppee si amee si lu mu jàppandu rek di liggéey ba mën a euh, euh, kii defar fameem tamit kun nga jàppale ko tamit wàññiwul dara waa ñoo ngi woo première dame ñoo ngi woo premier euh, ni ñu koy waxee président de la république ñoo ngi woo premier ministre ku ñu ñëw rek jàppale si autorité yi rek nga ñëw jàppale ñu ndax ndax liggéey rek lañ bëgg waaw autorités yi nekk Thiès yëpp ñoo ngi leen di woon ndimbal appel pour ñu ñëw dimbali ñu pour ñu mën a defar sunu liggéey ba mu baax FONGIP waaw maison d'outil waa ñoo ñëpp ñoo ngi leen di woo ñu ñëw jàppale ñu fu ndimbal rek koo xam ne dangaa war a dimbale nit rek pour mu war a mën a taxaw rek ñoo ngi lay woo pour nga ñëw jàppale ñu dimbali ñu waaw waaw CNG formation bi ñoo ngi koy gërëm ñoo ngi koy sant waaw waaw ñoo ngi koy gërëm ñoo ngi koy sant madame Silibé moom ñoo ngi koy sant ñoo ngi koy gërëm parce que moom tamit mënoon nañoo toog seetaan ñu waaye seetaan ñu benn yoon daa ñëw jox ñu formation bi fayeeku ñu benn dërëm pour ñu defar rek pour ñu mën liggéey bi kon sant nañ leen gërëm nañ leen. tur beeg sant bi sant na ma tànk si UDTS ak euh, lu waral syndicat yi nga xam ne dañuy ñaxtu di revendiquer rek tey ñu ne dañuy jàppale ay soxna si mbirum développement. man maa ngi tudd madame Boy Thillé bokk UDTS bokk ci comité technique national UDTS maa yore lépp luy question wu financière xaalis bi ñuy financé les lignes budgétaires ak yooyu yëpp man maa koy man maa koy suivre la comptabilité et bokk ci comité technique national bi nga xam ne mooy élabo mooy centraliser tous les plans le suivi yi ak évaluation wu kii PSE bi ñun nag dañoo ne dañuy def le syndicalisme autrement neneen nañ koy defee ñu rekk revendiquer mais dinañu revendiquer naam parce que am nañoo soxla revendication mais aussi dañuy jàpp ci développement bi dañuy installer même dans les ci structure formelles yi dañ fay installer ay cadres euh, dialogue social en général privilégié wu ñu revendication waxtaan la ñu gën a privilégié jàppale liggéeykat yi ñu liggéey parce que dañoo amoon xam naa dañoo amoon euh, secrétaire général bu visionnaire boo xam ne nii depuis les années quatre-vingt la gisoon ne économie informelle mooy mooy nar a jàppi euh, économie dëkk bi ci la nar a reposé wu ñu dem mu mu mu lancé wu dans ce dans ce domaine ba nga xam ne syndicat yu bëri dañ doon wax ne lan lay wuti économie informelle mais tey defe naa ne ñu bëri fekk si nañ ñu ci économie informelle. formation bi lan la ko tax mhm. dañ leen di gunge ndax il ñu am matériel. parce que bu fekkee da nga jàng amoo xam ba pare. Mhm. te amoo foo pratiquer. Mhm. c'est pas gis nañ fi ay association ay ONG yu ko def. mais après jigéen ñi dañuy dellu seen kër toogaat ah. donc en fin de ñun ne dañoo am méthode boo xam ne moom la ñuy suivre suñu activité yëpp am na ñaari méthode yoo xam ne suñu partenaire moo ñu ko jàngal muy PSE bi ak méthode storytelling méthode yoo xam ne suñu méthode la moom la ñuy suivre suñu activité parce que du ñu former rek en général dem bu samedi samedi bu incha allah di ngeen gis matériel bi nga xam ne moom lañ leen di jox bu ñuy liggéeyee. di ngeen gis aussi appui financier bi nga xam ne moom lañ leen di jox bi ngay liggéeyee dañoo am aussi ay chargé chargé de suivi secteur bu ne am na chargé de suivi di ko dem mi doon wax sànq si comité sectoriel lu informel la bokk donc ñooñ ay chargé de suivi la yoo xam ne ni dañuy remonter le suivi vers le vers ci kaw ñu xool ak suñuy méthode nattukaay ndax liggéey bi mu ngi dox ak doxul fu doxul ñu jubbanti ba mu ba mu ba mu ba mu jaar yoon parce que bëgguñu verser si si anonymat li ñëpp di def ñu def ko dañu bëgg toujours di am euh, la qualité ak pérennité dans nos activités la durabilité. ñu ngi